juróom-ñaari at ci ren ndekete at mu yàlla sàkk Momar Ndaw njiital la ñu ko boole woon ci génn kuréel gu ñu naan conseil des infrastructures nekk ca palais de la république di saytu wàllu partenariat yi na muy doxee ci diggante privé gi ak public gi journal bi nañu Momar Ndaw doon fa membre simple la yoon waxoon moo di waru fa woon a amee lu weesu fukki junne muy lu mu war di passé loolee passé ñu def ko njiital kuréel ga weeru yàlla sàkk muy fayee ko benn million ca palais de la république république Momar Ndao ne ñu duma ko weddi waaye benn million ba ñu may fay du dara ci milliards yi may lijjanti nguurug Sénégal la muy lijjanti jamono ji Walfadjri ne ñu mooy nu mu toroxale Alioune Tine jiital rado ne bu weesoo la waa CAP 21 ne woon Alioune Tine ak i ñoñam doyu ñu leen nay observateur ci élection nguur gi fas na yéene teg beneenub jéego moo di yónni ministre affaires étrangères ngir mu plante ji Alioune Tine ca Nations Unies la mu ca jublu mooy fexeel ko ba ñu génnee ko ci bi nañu teddu ca yam ne téeméer ak juróom fukki millions yi ñu jox observateur yi élection yi gile yoon nguur gi dafa bëgg a tàkk biirub alintin ak i ñoñam ba koppar yooyu duñu ko dégg duñu ko gis li ñu gis ci yéenekaay yu bari ñu xëyandool tey di juboo gi nar a am ci diggante Mame Matar Gueye ak alintin tribune yéenekaay nañu alintin dellu na gannaaw ci topp gi mu doon topp ca yoon porte-parole CAP 21 di Mame Matar gi leen doon jiiñu góor jigéen ak i faramason journal bi ñu njiital rajo gi rocc na plainte ba ba tey jii ci aljuma ji gannaaw jullik tisbaar gi ca jàkkay tali bu mag fa ñu leen fas yéenee jubóole populaire na ko waaye wax ji des na ndax Mame Matar Gueye dóorati na beneen bomb gile yoon waxul ay góor jigéen waxuli faramason waaye étudiants yi Abdoulaye Wade runge woon ca réew bu Haïti andi leen ci réew mi ngir ñu jàngee si fii ci ñii la Mame Matar Gueye feeñal ay mbóot Matar ne étudiants yooyee yu jigéen ya ñenn ci ñoom la kilifay réew mi di paasante ci la seene kay mu ne bu doon sax ñooñee ak njub moo leen tax a jóg yëf yi ñu teg ko ci yoon ba sëy am ca kon duñu leen wax dara waaye loolee yitteelu leen seenub xaalis la yor xam xel ne ay siyeen yi fi ñoo ngi ciy coona tax ñu bëgg leen a jàppee yaakaar ne te loolee duma ko nuppiwaale dina bind jiit réew mi ab leetar yëgal ko lépp lépp la ñu leen digoon dara la ñu ci gisul mu di ay rebelle yu ñu jëlee woon Casamance ne leen wéer leen ngànnaay dakkal xeex bi dinañu leen yóbbu ndakaaru boole leen ci nit ña enquête yéen kay ñu dañu leen indi fii ñu toog ab diir la leen waxoon dara amu ca tax démb ñu am fulla ju toll ne xëy wutali palais de la république observateur nañu toll nañu ci fukki nit ak juróom-benn yu xëyoon doon dem palais de la république ngir seeti Abdoulaye Wade takk deree ñoo leen dogale yóbbu central téeméeri mégawatt point du jour nañu ci xëtam mu njëkk moom la Karim wadd di wut Karim Wade ak baay ba Abdoulaye Wade ak ndey ja Viviane Wade ak kub jigéenam di Sindiély Wade ak mboolem ñi ak mboolem ñi leen wër Le Quotidien nañu ñoom la Pape Mody Niang boole dëxëñ seeni jikkook seenu doxaleen ci benn livre populaire nañu la calan des Wade accaparement mépris et vanité la livre ba tudd maanaam languk waa Wadeen akimo gi ñu nekkeek doyadal gi ñuy def ak dangiral gi nekk ci ñoom ñoomu nen la ñoom njóobeen yi Pape Diop tribune yéen a kay nañu juróomi téeméeri million la ay xariti doomam ne doññatee ca kër ga gàddu yóbbu doom ya ne ñu ci observateur loolee du dëgg Bamba Diop ak Mamadou Diop di doom ci Pape Diop ne ñu ci journal bi waxuma la suñuy néegi waajur waaye suñuy néegi bopp sax suñuy xarit ñu fa dugg kon càcc googee ñuy wax du dëgg sandarma ba ñu teg ngir muy garder kër Pape Diop ne ñu million yi ñu ne dañu koo sàcc ci kër gi amul li am mi ngi ci xët mu njëkk Walfadjri Grand Place ki def mooy Modou Mbacke Baara Dolli jamono ji ma nga ca kaso ba ndax waa ji jabaru jàmbur la topp di ndaw su am ñeenti doom nekk naak sëriñ bi ñeenti at